asalaamaaleykum mbokk yi di tàmm di top seen site internet mourides point info seen xarit seen soppe moo dellu si di leen présenté seen émission face à mourid info tey ñu fas yéene séq ak waxtaan honorable député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly kon def lu du jox ko kàddu yu mu nuyoo sëriñ bi bisimilah. asalaamaaleykum mbokk yi ñu seetaan yépp ci site internet bi tey ñu ngi leen dalal fii sëriñ Mbacké ak ñi nga ànd ñëpp muy waa mourid info. fi ñu tàmbalee di jaajëfal askan wi di ñaanal khalif général des mourides Serigne muntaha mu yagg fi loltu wër ak mbolo njabur si ahmed Bamba ki di delo ñaan akum njaal aussi tamit yoonu mur yépp ci sun wajur ñi xam ñak nañu ko muy Serigne Cheikh mbacké daru Rahman di ñaan yalla xaré ko aljana te woyofal su ci kawam diko jaal mbolam umu islam bi di sante bu baax di ndokkeel bu baax aussi tamit ñi nga xamanteni ñepp ñewoon nañ ci makul poroxaan gi di jaajeufal aussi tamit waajtaay bi ñuy waaj ñepp ngir màggalu kassa Rajab bi di si sama borom def ñu ag sek jam di ñaan khalifa bu sëriñ fàllilu di sëriñ habbu Mbàkke Mubaraka sama borom yakul ko fi loolu ak njabootu si ahmad Bamba gi yëpp. jërëjëf sëriñ bi ci nuyo bu sel bobu ñi ngi jaajeufal bu baax baax. kon sëriñ bi duñ def lu dugg ci waxtaan wi suñu laaj bu njëkk muy nekk ñu li ñu tàmbali dégg fii ci gox bi ñu nekk muy bawal ñu ne lan moo tax kilifa yi rawatina ñi sant Mbàkke di yëngutu ci politique ana sëriñ bi ndax mën nga ñoo dikkal li tax nga ñëw ci. waaw xam nga politique moom ayul li aay mooy politique sain mooy koo xam ni doo wax dëgg boole ko di wor ak di sàcc loolu moo bon te loolu mooy sain bi politique. yonte bi sallallahu alayhi sax dafa politique ma defar diine ci négocier ak ñi nga xamante ni ñoo bañoon ñëpp ba li bëggoon mu am ko c'est Ahmadou Bamba mi suñu royukaay bi mu ñëwee dafa ñëpp bi nga xamante yàlla dogal na maanaam moom mu jekku leen def leen ni jéggal baal leen suñu waajur yi fi nekkoon ak suñu maam yi fi nekkoon yëpp kenn ku nekk am na loo séqoon ak a fa nekkoon kon ñun li ñuy def mën naa ni ayul ndax kenn du dégg suñu gémmañ ñu génn si lu ñaaw wala lu bon wala ñu jëfé ko ñu leen si djublu moy défendre Touba ak Cheikh Ahmadou Bamba ci fa nga xamanteni fa lay ñu nosee ko nocc muy pencum ndaw rew mi te japp naa ni lolu am ndam ndax ku da yonne kalay demal bo demee du am du wax du la waxal li nga bëgg du la ko defal nga jël sa bop mbir mi demal sa bop te gis na ni biñu ñu suñu bop ensemble national suñu taxway ñaar at yi ku ne xam na ni tay ji may wax ak yow amna satisfaction deux cent pour cent ndax xalif sana de Mouride si boppam wax na ma ni ma am nga ngërëmul sëñ Touba ci liggéey bi nga koy liggéeyal ci pincu ndaw réew mi kon loolu ndam la ndamul Touba yépp la kon loolu mooy mooy li nga xamante ne rek mën naa laa wax ne la man it moom ay euh, politique moom aayul euh, saint bi daal moo bon te saint boobu nekkuñu si yàlla na si yàlla musal. Euh, ñu jógee ci élection présidentielle muy. échéance électorale bi nga xam ne moom lañ jóge bërki démb ñu gis coalition opposition bi di 2019 am fi ndam loo xam ne kenn xaaru woon te muy lu nga xam ne que ni gis nañ ne que ni ci élection yi fi jaar yépp la famille libérale fu ñu réunir rek bu ñëwee ci département de Mbacké car macha duma li wax benn boo ko yaakaar alal xam nga loolu population bu Touba la ak leadership bu seen kanam ndax élection 2017 yu député yi ku ne xam ne Idriss Seck demoon na ci élection yi. àndoon ak Khalifa Sall àndoon ak Malick Gakou ak mboolem opposition bi mu àndal ni tey àndoon naa ak moom ci élection yi ki nga xam moom la àndutoon mooy PDS ak bokk gis-gis yàlla dogal PDS demul élection bokk gis-gis moo ànd ak moom dem élection man maay coordonnateur bokk gis-gis ji askanu Touba loo xamante ni fu ma leen joxe ñu ànd ci loolu moo tax Idrissa Seck amoon 1800 voix ci élection législative yi bi yoon bi ma ñëwee ànd ak moom génn sama 50 million teg ci kaw taabal ji jël sama fukki oto ànd ak ñi nga xam ne ñoo fi bokk nekk ci coalition yi bokkoon ci seen parti ànd ak ñoom ñu diré jiite ko combattre pour gagner ndam am fi 129000 waaw kooku nak du Cheikh Abdou Bara Dolly mais population bu Touba la ndax japp na ne peuple bu Touba bi ag nañ fo xamanteni ak sen dayo ak sen matway kep ko xamanteni faale lan la faale ku len yegul dun la ku safawul cheikh Bamba amul soxla ndax Touba la ñom te xam na ni Macky mi nga xamanteni ni juroom ñaari at amul lan lo ci Touba ni Macky def ba ba pare boole ko di bundu xataal sët Sëriñ Tuubaa yi kooku nag bu fekkente ni am na lépp lu fi mën di di di di xëccoo ñun buñ si àndul Macky Sall day ñàkk loolu ndax peuple ak fi ñu nekk défendre Cheikh Ahmadou Bamba yoon bi la ñuy défendre ak ndax loolu lan am ñun Touba lan amuñ feneen mun ñu diggaani feneen lii am Sëriñ Tuubaa mun ñoo am leen lu gën a kaw moo tax ko suñu taxawaay ak suñu dayo bu ñu am lépp dañ ko delloo Cheikh Ahmadou Bamba delloo ko njukkal peuple Touba bi nag ñun mënul leen a fay ndax élection yu fi mas a jaar fépp foo xamante ne ànd nañ fa ni nan dem foofu noonu ñoom ñëpp topp nañu si loolu pour ñu ànd fa dem woote élection yi ñëwaat bu neex yaa tamit la maintenir incha allah Macky Sall day ñàkkaat fii incha allah. en tant que coordonnateur bokk gi fii ci département de Mbacké yan irrégularité wala len loo xam ne mën nga ci teg baaraamu tuuma boo ñu mën a indil tey ci lu nga xam ne élection yi do doxe woon na ko ci lu fës lu nga xam ne ni mën nañ ko tudd. loo xam ne lu xam ne lu ci irrégularité lu lu nga xam ne ni maanaam euh, jàpp nañ ne ni waroon na mën a gën a aw yoon pour que élection yi gën a mën a transparent waaw xam nga élection yi moom ku ne xam ne ni Macky Sall moom dafa programme pour sàcc élection yi comme ni mu ko defee am na boo gisee élection yi jàll Sénégal mel ni dëj ba fi may waxee yow Macky dafa am problème problème bi ma am mooy xam na ni gañuwul élection yi moo tax que bu ma gisee ñenn ñu ñàkk jom ñi bokk APR ñàkk jom mënul paas ñu gañe la si dëkk bi Touba. ngay rafet sam ngañaay naan maa gañe waaye am naa li kooku ñàkk jom xamal ne ñoom Touba ñoom ñi kooku damaa jàpp ni ñoom li leen waroon def mooy dañoo waroon lu jéggulu Macky ndax xaalisu Macky Sall bi ñu jël sàcc ko leen ñu tabax ko ay kër ko oto dañ fekk si ay jabar muy waa APR ñoom foofu la waroon a mais bu fekkente ne gaye la nga ni kat gaye waaye sama ngañaay eh, am naa lii nangam nangam mais ku ne xam na ne électorat Touba dafa yokku ah ba noppi ñaareel bi mooy ñoom bi ñu ñëw élection yi dañu sens lieu de vote yu bare bare bare yo xamanteni dañu sens carte électorale bi te ñun xamuñu ko am na ñoo xamante ji may wax yow bindu won nan am seen carte dem war wote ñu dem ci bureau bi ñu ne seen tournée ko koku ak sàcc bureau yu bes yi nga xamanteni def nañ ko yëpp c'est une bureau yo xamanteni alu ngu ndjay mo ko créé woni bi dana wàññi ko wala ñom dañuy gagné da alu ngu ndjay wax na ma assemblée nationale directement mu ma élection législative Ablaye wad la won mais élection yi nga xamanteni moy présidence da ngeen xamni ñun dañ gagné Touba mane ko yow Aly Ngouille nan dem élection yooyu jot ni ma leen gagné woon Touba ni laa leen di gagné lu ko ëpp te ku ne xam ne dañ leen humilier Touba loolu nag dama lay xamal ni ñoom lu nekk def nañ ko indi fi militaire yi pour que maanaam population bañ a génn wote ji xupp askan wi yëpp mais teewul askanu Touba Serigne Touba moo leen gënal seen bakkan Serigne Touba moo leen gënal lépp ba tax na ku leen bëgg a ñàkkal fayda ak ku tudd Serigne Touba mais ñoom doo leen am loolu moo tax que Macky Sall mënut a am Touba dara. dara ba fi may wax ak yow jukki seen diggante mi kilifa yi ko intéressé ma lima ma intéressé mooy peuple tubaab bi dañoo am maturité boo xamante ni tey jii képp koo xamante ni ànd nga ak Macky Sall te Macky Sall weñu kuul ginnaawam lam doon def yépp mu bàyyi ko peuple tubaab bi du si am maanaam ndam incha allah. ñaari at yi euh, assemblée nationale ana lan mooy bilan ñi nga la la yaanaamar su di bawol xam assemblée nationale bu leen déggee rek bu ñu yëkkati seen kàddu

ki nga xam moo jiitu see Ahmadou Bamba nga xam moom mooy Serigne Mountakha wax ne ma fa nga nekk Serigne Touba bég na ci yow am nga ci ngërëmu Serigne Touba ndax bi ma yàlla dogalee mag ñu gañ assemblée la ma njëkk a def mooy dama wut ak kaamil alxuraan yoo dama ko jële màkka di ñaan Serigne Sidi Muxtaar mu yàgg fi ma dem ci moom muy xalifa saint des mourid jox ko ñaar fukk kaamil ak juróom-ñett. ñaan loo ko ni ko dama bëgg fa ma nekk ma am fantam te ñëpp dégg mu ne ma da nga fa nekk nekk liggéeyal fa sëñ Tuubaa ba ma fa jógee ma dem ci mun Mountakha fekk ko fii tey jii si daara ji fi ñuy daara ji daa tonsir jox ko moom tamit kaam yu toll noonu mu ne ma yàlla nga am ndam foofu ñaanal ma ma jóge fa dem ci parti programme nationale mu ne Serigne Bassirou jox ko moom tamit nombre bu tolloon si kaamil avant may dem foofu noonu alxuraan laa jël waaje ko am ngërëmul Serigne bi ak ñaanam doog ko dem moo tax que la ma fa def du man sëriñ Touba ndax am na ay député yu nekk fukki at def ko mandat Assemblée nationale te kenn déggu leen te ku ne xam na ni man député laa boo xamante ni tey assemblée nationale kenn du lim député yi te boolewuma ci yaakaar naa ne loolu ndam la beneen ndam bi si mooy man sama jëm bopp fexe naa ba tuubaa fayul ndox ci session yi ndax bu doon toon ñun suñu taxawaay ci Assemblée nationale Mansour Faye mi nga xam moo yor mbirum ndox mi waxoon na ni Touba obligatoire dafa waroon fay ndox depuis daaw la ko doon tàmbali mais xëy na suñu taxawaay ak suñu dayoo ak mi nga xam moom la wane mu jariñ suñu bakkan. loolu kon kon foofu débat fayum ndoxum touba ex won na ci en session eh, eh, plénière ya. oui assemblée nationale ak ci won ci ban ban ban programme won ko tay ji man ma tak lolu amul kon lolu san seigne touba la te ni nga xamanteni non la ko defé défendre ak seigne touba peuple touba bi la <clears throat> ñom ñoko mom ndax bëgguma ñoo ñi sag sagu ci ahmadou bamba ci lo xamanteni serigne touba moko ñaan sa borom ba may koko ben joge fenni touba lim am dañ koy dindi touba ak lepp yep yep koko duñ ko nangu loolu moo tax suñu taxaw ensemble mission la boo xam sëñ bi ñu fa tànn yebal ñu fa moo tax que ñun dañuy def lu du sant sëñ Tuubaa ci loolu kon ñun am na si maanaam satisfaction beneen bi stoppaat mooy ku ne xam na ne Touba li ñu fi war a xeex yëpp ñu ngi koy xeex mais député muy opposition muy nguur gi député du caay nga muy indi li mu war a indi yëpp la mu wax mooy la mu war a def mooy lii manqué na fi war a def li war a def mais comme état bi nga xam mooy état bi Macky Sall jiite amul intention pour liggéey Touba amul ambition tamit pour def ñun li ñu war def mooy. défendre Touba fan ko war défendre heure bu bis ci Sénégal génne Touba war si gis wàllam ñu wax ko lu fi am na ñu xam ni loolu moo fi war a am ci nguuru Macky Sall bu keneen ñëwee la mu war a Touba ñu def ko fi loolu laa gis ah am nañ satisfaction sant nañ si peuple bi incha sa homologue euh, député Sadaga mu wax ne que ne dafa bëgg dugal benn projet de loi pour ñu pro protéger kilifa diine yi xam ne pour ñu génne leen ci coowul politique loolu ban gis-gis nga si am. non loolu du si tontu. notre Sénégal c'est une laïcité la bon kenn ko nekk am nga droit mais loolu waxi waxi bojo bojo la rek duma si wax ko ndax mën nga ñoo dikkal ci perspective locale 2019 yu nga xam ne ginnaaw am ngeen ndam ci département bi ndax ëllëgi légit ci euh, locales yi mu ngi ci loxol coalition Idy Idy 2019. incha allah élection locale yi dèjà ñun tàmbali nañu ko ñu ngi def réunion ñu ngi def suñu coalition gën ko yaatal ndax ñun ñi nga xamante ñoo demoon ci coalition Idy 2019 incha allah loolu la ñuy jéem a maintenir pour que ñu dem ci coalition bi ak tur bu ñu ko mën a tuddee en tout cas pour jël maanaam conseil département bi jël mairie Mbacké ak commune yi nga xam ñoo wër Touba yépp commune Touba bi tamit ñu wut si ay ñu am ci ay conseil ndax commune Touba bi bi ñëw bi ñëw ni ni muy doxee dana wut ak ni non doxé ndax ki fi nekk Serigne Touba xam na ni liggéeyal Touba rek moko ñor té ñi nga xamanteni tay dañoo am ay xam-xam am compétence am ay moyo pour mëna développer dëkk bi ñom seen jëm bop ñom ñëpp paré nañ pour accompagner Serigne bi ku ci melni man té man musuma dugg ci conseil bi mais bi yoon inshallah dina dugg ci conseil bi ci lima Serigne bi wax pour liggéeyal Touba nit ñi nak bari na ñoo xam dañuy yàq

ah buñ la invité maanaam colloque international mënuloo dem xamoo looy wax mënoo teg sa sa loxo fenn ni lii maa ko fële ci ci ci dëkk bi tam bi sa ay milliards. mais kooku yaakaar naa ni euh, il faut dëkk bi sensé il faut ñu sensé que maire bi mu jóge ci loxo ki ko yore ñu jox ko keneen koo xamante ni vraiment ku mën a développé dëkk bi la koo xamante ni dana xam nga xamante ni mooy liggéeyu maire ndax bu fekkente ni dana jox maire bi au lieu dëkk bi dem di liggéeyal Macky Sall ba ñu da nga génn xaalis boo xam xamoo yow foo ci la xaalis pour jàppale ko Macky Sall ci élection yi Macky daanu kooku tamit vraiment liggéey la boo xamante ni daal refulu wuñu liggéeyu maire dëkk bi kon waxtaan nañ si kilifa gi incha allah dañ gën ñëpp ñoo seq Touba ndax Touba ñoo ko moom ndax jàpp naa ni kenn duñu ko defaral ñu sëñ Tuubaa si boppam ñaan na ni sans la incha man nekk naa candidat pour conseil département bëgg naa jiite conseil département bi moo xam coalition bi nga xam ne mooy coalition Idy 2019 la moo xam coalition bu mu mën di dugg coalition bu mu mën di dugg boobu mooy gagné incha élection yi ñëw te incha nekk naa candidat pour conseil département pour jiite ko ndax ki ko yoroon ñun ñoo ko joxoon jamono Ablaye bon PDS la ñuy bu fekkente ni bëgg nan mu ñëw ñu accompagner ñu maam ñu ànd ak ñoom coalition bu fekkee PDS dafay dem candidat boppam tamit ñun dañ fere dan danañ créé candidat boo euh, une coalition boo xamante ni bu ëpp bi ñu doon demee élection yi la incha allah ñu jël ko pour maanaam loolu maanaam bu dee commune Mbacké aussi tamit am lan fa ay nit yoo xamante ni waa bokk gis-gis ak waa réew mi ak ñenn ñu xam ñoo bokkoon si coalition bi yëpp ñu ngi waxtaan pour jéem samp benn candidat boo xam ne ñëpp. ñoo si àndandoo pour que maanaam ñoom ñu jëlee fa maire APR bi nga xamante ni moo fa liggéeyu fa dara en tout cas daal conseil département ak maire Mbacke moom dana dugg si loxo yi nga xamante ne mooy loxo yi nga xamante ne mooy loxo yu set du loxo opposition bi bu dee commune yi nag commune bu nekk aussi tamit la ma wax rek mooy wax naa leen ni leen yëfi yëfi commune la na ngeen dem si village yi village bu nek bu ngeen fa demé ngeen xol ka nga xamanteni peuple bi déggal nañ ko muy goor muy jigen ngeen jël ko préparé sen lycée pour le moment jéem ay parnas ndax parnas da fay am ci élection locale bu fekkee ndax fofu mënu ñu duggal ci ay détails ba nit ñi ñi dem parnas local bi won li tax ko so dafa bari moy ben, bu ñëk bi moy pour nga am manam candidat muy présidence muy élection locale élection député da nga am ay parnas parnas mooy ñoo xam da ngay ñëw si ñoom ñu leen lekk kaay li ngi pare na pour ma nekk candidat mais jumtuwaay yi ñu ko war a saytoo amut tey tamit loi bi mu jàll li si war a tege yépp ku ne xam na ni état bi tuuti ko si ndax parrainage bu fekkee dafa am ay doublon am dañoo wax si loi bi ni dañ laa war a condamné diggante 3 mois ba 6 mois amaana 100000 francs te ku ne xam na ni li fi nekk ci ay doublon kenn xam nu mu toll mais est-ce que ñooñu tëj nañ leen kenn tëju leen te ñu tëj leen kon loolu mooy wan ni loi bi baaxut. léegi il faut loi bobu ñu indi wat ko ensemble pour waxtan si affaire élection locale yi jéem a xool nu mu ba ñëpp mën a mën pour que manam ñu mëna a dem si élection yi parrainage bobu képp koo xamante ni Macky Sall bëgg na la éliminer candidat da nga la éliminer ci parrainage ndax ni mu éliminé Pape Diop éliminer ko Bougane Gueye éliminer ko ñeneen ñi nga xam ne ñëpp ñoo nekkoon ci kii bi noonu la war a mën a éliminé ñi nga xam ñoo nekk ay parrainage ci candidat élection euh, locale yi ndax dañoo wax ne léegi le nombre d'électeurs bi nga xamoon ne si euh, euh, ci ci commune il faut nga am si 2 ou wala 5 pour cent kan contrôler Ce préfet wala préfet dama il faut que liste boobu kon moo lay wane rek loolu baaxul ba pare ñaareel bi caution bi ñu si def aussi pour nga nekk candidat de mairie, da ngay joxe 5 millions pour nga nekk candidat mais est-ce que les fukki communes yi ak ñeent yi am si département Mbacké yëpp opposition yi mën na commune bu mu joxe 5 millions amuñu ko. kon moy wan que ni fan la commune 14 commune 5 millions. chaque commune 5 millions pour candidature xam nga ni opposé amu mo lay wan ni la rek lolu pour ma amé pouvoir bi dana fexé ba amna na xaalis daanaka day nekkat manam maire nomination lay do ndax moy mooy euh, joxe 5 millions ay maire ñu nek ay candidat te su boba tamit légui manam population bi duñu suyé di ndax danaka du am solo que ni peuple bi ñom ñoy tan manam ku leen neex ki nga xam moo yor 5 millions yorub xaalis rek kooku la kooku mooy dem ndax da gis benn dëkk boo xamante ni dama lay jox benn exemple lu si mel ni njumaan mu bokk si doyool yi nga xamante ni tey bu ma neexoon ma laaj maire ba 2000 2000 électeurs la na am 2000 électeurs léegi 2000 électeurs bu fekkente ni juróom-ñett liste am nañ fa kenn ku ne mënut am 2 pour cent voilà loolu moo leen wane rek tey euh, yëf yi kenn xam nu toll ndax am na yoo xamante ne ay. ba tey dañuy taxaw ci foofu noonu ci côté local yi ñu gis ne que dañ ne ne fu am dix mille euh, habitants yu fay yeewoo ci code code des collectivités locales dañu ne dafa war a nekk commune ñu gis ne que Touba li fi yeewoo macha allah ëpp na deux millions kon est ce xeex bi ba tey ñu gën ko yaatal ngir am des communes d' arrondissement ci biir dëkk bu sell bi. xam nga loolu ndax ku ne xam na ni loolu day gën a defar gën a yaatal mais est-ce que comme sëriñ bi nii la ko bëggee nii ko sëriñ bi bëggee ñu bàyyi noonu mais man dama xalaatoon tey jii nii li doon gën mooy Touba benn maire kese doyu fi dañu waroon jël maanaam euh, bon Touba mosquée def ko benn maire yi jël ndindi ak li ko wër mu nekk maire yi jël côté yu jëm côté Saam jëm noonu maire yi côté. caawe daru saw côté yooyu yëpp xam nga bu ko defé dekk bi day gëna dem dar rahman côté yooyu yëpp loolu jàpp naa ne bu amone Touba dana gëna noy gur kenn ku nek da nga gor gor lu pour liggéey mais c'est dommage comme serigne bi ci mom moy ci mom dekkam te ni lu ko bëggé ni ko serigne bi bëggé rek non lañ koy doxale inshallah ndax ñun ay taalibe lañ serigne Touba lañu gëm. jërëjëf mbokk yi ñu doon émission face amour.info ñu ngi ko seqoon ak honorable député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly kon def loolu jox leen dig daje ba beneen yoon jërë ngeen jëf